Heavy Maze.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 bi la xamante xaritu doom ji ndax da doon liggéey ak otoom xaritu doom ji dal di koy upp mu gaare naka noonu ci la ko xale bu jigéen bi ne yóbbaale ma sawaay dal di na ko yéegal xaritu doom jooju na nee ñu mu ngi yoo ci turu SF at yi toll ci fukki at ak juróom-ñeent ci liggéey ci ab restaurant ci biir oto bi nag fa mbir ma xewee ndax tonton doxaanar daa tàmbalee dragué xale bi ci seen waxtaan boobu nag ci la am tonto doxaanar amee numéro xale bu jigéen bi bi muy wàcce xale bu jigéen bi daf ne ko man heure bu nekk fii lay jaar xale bi ne kon mun naa la di fi xar saa su nekk nga may yobbale ndax paas yi day métti am di baayu xale bi at yi mu ngi toll ci quarante-neuf naka noonu si la saa buy xëy rek jaar foo béréb fekk fa ndaw si di wuyoo ci SF mu ko fay xaar mu yóbbaale ko naka noonu ñu koy def ko def ba ñoom ñaar ñu dem bay génn ku ne làq sa coppati morom ñu envoyante ay message di taje ci ay bërëb yu bakkane di béggee am li muy génn ak SF xaritu doom ji yëpp masul xam ne xaritu doomam lay génnal SF it naka li muy génn ak am baayu xarit bi yëpp masul xam ne bayu xaritam lay génnal <laughs> moo tax ku ci bàyyiwul lool romb rasat nii rek am ak SF di ñaari copine yi nee ñu yàgg nañoo xamante xamante ay copine de classe lañu garde seeni link di déggante di demlante kaayam nag yàgg na bi mu jógee kër baayam ndax kër yaayam la nekkoon ndax bi muy nekk daanaka xale la baayam ak yaayam tàggoo woon yaayam a ko yar mu nekk fa gise gi muy gise xaritam bi di SF yëpp kër yaayam la ñuy fekkante yaayam xam SF muy ñëw ci kër gi li indi mbir mi nag ba yëf yi fuite bés SF ak kaayam dañ doon waxtaan par whatsapp sf ne kaayam xarit bi temps yi tonton bu toog laa lu ne la may defal ba greffage bi ma statut sax moo ma ko defal di wax bërëb yi ñuy dem dal di envoyé bi ak ay photo bi kaayam kaayam xarit bi mu gisee vidéo yi xool xool yaakaar ne day gént ndax ki mu gis ci photo bi ak vidéo yi du kenn ku dul ayam baayam pëttalam ci saa si mu am électrochoc tontootul benn yoon eseef toog woo xarit bi ne ko waa xam nga ki ngay génnal mooy kan xarit bi ne ko mu ne ki ngay génnal muy am sama baay la pëttalaw <laughs> ku bàyyiwul loo romb raasaatu nii rek am yamu ci dee ndax ci dafa woo yaayam koy expliquer mbir mi ñu naan deetawaay mu wan ko vidéo yi ak photo ji ci saa la dem kër baay bi ba mu demee dal di koy songu histoire koñ ba foo sandi mbatt mu taag ëpp naa def nag ba mbir mi ci suuf lañ ko mujj réglé li ci doy waar nag mooy aaye musiba kumba mbaba ko mujj dal ndax gannaaw coo loolu riir ci koñ bi fu nekk ñu koy waxtaane jabar ji mu takk dafa buub ay bagaasam dem kër yaayam toog bi mu yegee ne jëkkëram day doxaan <laughs> moo tax bàyyi doxaan doxaan baaxul cuuj fii cuuj fee moo tax nii moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a garaaw korona laa wax waaye yéen l'accident yi dina jeexal Sénégal de réew moo xam ne weer wu nekk l'accident yi takkarnaase te l'accident yooyu nag saa buy am day doon accident yu métti yoo xam ni nit ñu bare ci ñàkk seen bakkan kannaaw sii kiloog sàkkal beneen amatina ca ngan sar ñaar fukki nit ak juróom ñàkk ci seen bakkan way way way way way mim réew réew moo xam ne bis bu nekk dañuy jël ay mesures tegeene lu xew ñu waxtaane ko ñaari fan tegeene chauffeur si di def leen neex réewum def la neex kenn kenn du wax nii rek mu doon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz